assalamu alaykum mbokk internet du antv di len nuyu te di len jaajëfal ci teelu bi tey nak exclusivité lañu am ak kii di Ass Taco nek nit ko mucc ci jangoro ji di coronavirus ginnaaw ba mu suivre ay traitement am ci hôpital Diamniadio mu nek premier cas patient guéri bu nango def ak ñun témoignage alors ñu bàyyi len ngeen téwlu ko am rédaction bu antv ñu len di nuyu bu baax di len sante wa antv ak wa yarah yëpp ñu len di nuyu bu baaxa baax yalla dafa daf ma damone voyage fan yoyu fan yi ci won euh ci sama cadre liguey dama euh France damna naa Italie dem Danemark damna ba Allemagne ak Suisse moy temps bi nga xam le le le la bi sogo a surtout fofu xamna damay njortu parce que kenn mënul xam biñ la koy wal du du bu la ko walé rek ben bouton day tak manam mënoo xam fan ñu ko walé mais man njort naa ne Italie la war a nekk parce que temps yi ma fay nekk mooy temps yooyu ñu ko tëjee mun na nekk tamit ci avion bi bi may ñëw maa ngi toog ak sëqat ay ñetti ñeenti sëqat te ñun ñoo toogoon mun na nekk tamit aéroport bi bi ñu wàccee parce que dañ fay taseel li ci gàttal daal maa ngi ñibbisi le 10 bi ma toogee ba le 19 laa commencé yëg symptôme mooy li ñuy li nga xam ne moom la ñu wax symptôme comme que ñun tamit yàlla dafa def bi ñuy nekk xale dañoo bokkoon croix rouge yooyu yenn yow yaa ciy gën a am yeewu ñeneen yi donc bu ma commencé sëqat sama bopp di metti euh, sama yaram di sonn euh, nga dégg sa baat bi commencé di di bizarre ma ma njortu Covid 19 bi ñuy wax moom ak tàmbalee daal maintenant à ce niveau dama daf li ñuy wax confinement manam da ngay isoler sa bop nga dagg sa relation ak nit ñi nga fexé ba daf li nga xamné mom lañuy xaar ci yow pour nga baña wal kenn.

ambulance bi jël ma après ñu yobuma ma jam ñaajo ma jam ñaajo am fa pratiquement dix-huit jours waaw buma ma exactement donc ak traitement bi amul traitement sax dañuy wax traitement mais affaire bi amul faj donc euh, li ñuy wax euh, traitement par les symptômes moy manam li metti rek lañ lay fajal sa bopp bu mettee ñu jox la paracétamol euh, sa yaram bu bu bu bu bu sonné ñu jox la vitamine C boo sëqatee ñu jox la sirop sëqat donc lool lool moy faj mi euh amna chance tamit bi ñuy commencé chloroquine ma nga fa donc ci ñi commencé chloroquine bi Sénégal ci la bok, jël nako ko 10 jours ba ba li ma ko jël yépp tek ci sax ay fan soko génn donc euh, voilà non la dundé fièvre bi sur un autre plan aussi amna lu ci bax amna lu ci neex parce que après tu vois que comme fu mel ne en fait nit ñi dañoo baax tu vois il y a beaucoup de compassion beaucoup de prières nit ñi dañ lay ñaanal tu vois dañuy dañu lay envoyer ay ay li wax ay ondes positives tu vois loolu tamit euh, côté la bu nga xamné euh, dang da nga koy rafetloo maanaam euh, ci bir nakar toujours mën nga ci gis li nga xamné daf lay daf lay defal voilà non la dundé maladie bi. ni ko dundé bu ñu ñëwee am bu bari waaw duñ ko wax waaye dafa am angoisse ci biir parce que feebar la bi nga xam ne kenn xamu ci dara waaw loolu mooy li gën a li gën a li gën a yéem dañ lay wax amul faj kenn xamu ci dara te chaque jour mu rey ay centaines da ngay dégg ñu ne États-Unis tey rey na mille xëy na bu ñu jëlee réyaayu dëkk bi ak ñi feebar am na lu dal xel tuuti parce que du ñu feebar ñëppay faatu Sénégal sax daanaka kenn faatoogu fi alhamdulilah à part ñaar. mais sa xel du dal parce que da nga fièvre fièvre bi nga xamné amul garab té nit ñang ci dé ci aduna bi après tubaab yi am doole ne mënuñu ko fajj américain yi ne mënuñu ko fajj français yi ne mënuñu ko fajj Sénégal ñi kenn mënu ko fajj après yow nga nekk Sénégal yaraax mu dal la maanaam loolu sa xel du dal du tout donc da nga nan duñ më fajj donc euh, njàqare mo nekk ci biir ensuite euh, comme comme maladie ñu virus li ñuy wax charge virale en français ku nekk virus bi ni mu nekké sa yaram du non la nekké sa yaramu morom euh, ki ngay waxal est-ce que gënuma feebar est-ce que waruma ko moytu donc même ci biir day amat benen confinement bo man bimay bimay mujjé may danaka dama daanaka tit ñu bess ni sama quatre derniers jours waccuma sama lal parce que je me suis dit que man mang fi bëgg yag est-ce que duñu bess ni ñomay ñoo après da ngay jéki jéki nga né bon man sax gënuma sama nek waccuma sama lal médecin bu ñu sax après bo bo sañé duñu la lal parce que ñom tamit dañuy am donc donc il y a beaucoup de d'inquiétude à l'intérieur d'angoisse ah de de peur d'avoir est-ce que sama sama sama njaboot wàllu ma leen est-ce que duñ ma fi fekk est-ce que man ñi ma nuyu woon ñoom duñ ma wàll ah peut-être lii ne chaque fois que kenn wax la testé nañ ma aw ma rek da nga naan oh alhamdulilah. stigmatisation bi maanaam li ngay wax berbeek joxoñ bi. dama leen ko mayul c'est-à-dire je n'ai pas laissé d'espace man maa ma maa ko mayewul waaw bu ma ñëwoon sëngeen wala ma toog sama kër wala génn ma dinañ wax kii dafa corona woon mais mayu ma kenn espace. boo may yërëmee wala boo naan corona en fait man maa la war a ragal man man amatuma mais yow yey maa wax ak yow mais wóoruma ndax am nga ko parce que musuñu la tester donc man de man ak yow fimu nek man malay ragal bu yërëm amé man malay lay parce que fa ma war nga fa mëna delu té te xamoo li fa am man xamna li fa nek donc peut-être que amna na ñuy stigmatiser mais man personnellement je ne laisse d'espace à personne amul kenn ku may may yoon wala part boo may boo may wala nga yërëm au contraire jangat bima ci am nak te wax naa ko ñi nga xam ne kilifa yu mag yi koy yor yu yor feebar bi mooy ni ñu lay jëlsee moo njëkk a ñaaw jëlsi bi moo rafetul man xëy na am naa pexe ak man-man yi nga xam ne xeex naa ba jëlsiwuñu ma ni ñu ma bëggoon jëlsee waaye xeex bu metti la jëlsiwuñu ma ni ñu ma waroon jëlsee waaye ngeen ñëpp gis ngeen ay video ay agent sanitaire taxaw sol ay affaire tenue yu raglu yooyu mel na ku jóge ay ay planète Mars wala planète Jupiter ah mel ne ay ay vaisseau spatial dañu ñëw ambulance yi taxaw après nit ñi di leen filmer ñii di yuuxu ñii di daw xam naa fa kenn ci centre bi ñoom bi gars yi ñëwee seen waa immeuble ñoo daw fëx donc cest di dire autorité sanitaire yi ci tàmbali gi jàppale woon nit ñi parce que ci wàllu dignité ak respecté doomu aadama mën nga koo faj jëlsi ko li nga xam ne dafay ànd ak humanité nga xam ne nit ñi duñ ko ragal ambulance mun na ñëw taxaw nga dox ndànk ñëw ñoom ñu sol seen affaire nga ñëw ubbi dugg mais xam nga am na ni nga xam ne bu ñu ñëwee rek parce que ki lay faj bu muuroo ci commencement ba fin ben ñeneen ñi dañ naan bu ma deful nii dee kon foofu naa fa sori parce que bu dee docteur bi moom ci boppam dafa tëju complètement maintenant docteur bi tamit waxuma ko mu bañ a def loolu parce que warul nekk en danger moo tax lii lu am solo la il faut que boroom xam-xam yi saytu lii pour xool fan la ñu war a taxaw ci diggante protéger docteur bi ak baña traumatiser nit ñi. isolement est physique do laalante ak kenn këyit sax du génn sa néeg médecin yi sax luñ fa bind dañ koy photo envoyer ko seen bopp maanaam la fa nekk du génn waaw sa néeg la fa nekk mbalit la jëm dañ koy sànni mais yaa ngi téléphonante ak seen waa kër yaa ngi lire yaa ngi journaux yi yaa ngi ci internet bi donc le contact avec l'extérieur et n'a pas de changement maanaam ku dee nga yëg ko. Nous sommes suul Italie nga yëg ko nga chaque jour donc et ça ça ça rajoute à l'angoisse sentiment ku sentiment ku catastrophe bu mag tu vois que en fait lii mi ngi sama ginnaaw da ngay faire, ah, hein, da ngay bëgg tu es reconnaissant au bon Dieu hein? tu voilà tu es content tu es vraiment super content et, et soulagé population Gérard, population Sénégal population Dakar moy daf leen li autorité yi wax amna ñi nga xam ñoy suñu kilifa ci walu wér-gu-yaram ay borom xam-xam yu mag lañ saytu nañ li ñuy saytu wax li ñuy wax donc ñun dañuy top li ñuy wax parce que ñun amuñu xam-xam bul génn bul génn respecte la la la la la distance réglementaire et sanitaire bu leen nuyoo bu leen manam ñëpp xam nañ li ñu war def parce que mi ngi ci nañu déglu bu leen def regroupement bu leen def regroupement je pense que ñom ñi nga xam ñokoy gérer bu ñu defee li ñu wax dañuy mucc dëkk yi seen population daf liñ liñ leen wax yépp affaire bi arrêté na pratiquement Chine arrêté na mi ngi arrière dëkk yi ko respecté boo demee ay Norvège ay dëkk yu développé yi affaire bi dafay taxaw Sénégal xëy na ñu ngi góorgóorlu moo tax bëriwul donc nañu respecté consigne yi feebar bu am la lu ragal lu la boo nekkee fële da ngay xam ne du ay faux du ay caaxaan c'est très sérieux les gens meurent xëy na ñun dañoo àggagul xam nga li ma leen di wax mooy Sénégal dañoo àggagul li ñuy wax feebar dafay am seuil d'implosion fi mu nekk nii dañoo wax deelewuñu mais du dëgg de li ñu am moo tuuti ay 200 cas même même ñi am ay 16000 tuuti mooy dee tu vois ñi am ay 20000 cas tuuti mooy dee donc boo amee ay 200 ay 100 presque en du dee ça c'est du sunu ngóoraan ah. c'est que feebar bee ko àggagul mais bu ñu amoon 1000 mu dal mag ñi mag ñi dañuy commencer dab même bu dee reyul xale. ñun dañu wara a ba suñu waajur yi suñu mag yi man mais duñu dam parce que fi ku fi nek sen kër ka fa mag 70 ans amna 70 ans ku fi am sa papa fi mi mi ngi entre la soixantaine 70 donc ñooñu bu ils ils seront très vulnérables donc il faut qu'on fasse attention il faut qu'on respecte les consignes il faut qu'on soit discipliné et là on pourra peut-être arrêter la maladie les médecins à l'intérieur sont extrêmement dévoués, surtout ces, gens de la Croix-Rouge que, sont les Magib et autres. Mm, ils sont extraordinaires. je Man quoi, je l'ai tiré le chapeau parce que je sais que les Len est volontaire. Les centres, ils presque 80% du personnel. ñi nga des dañ leen ber ci Dakar war à 100 donc ils dem leen tirer le chapeau médecins aussi parce que faj ki nga xam ne xamoo noo koy fajee na la moom xamul nu mu lay fajee amul garab mais chaque jour il faut mu ñëw wax ak yow il faut ñu ñëw dafa la ay prélèvement sanguin il faut ñu ñëw jëlal la prélever la loolu rek danger la te ci la ñu dëkk donc ñoom mënuñoo daw mënuñoo dam seen salaire bëriwul te ala coulée al il faut chaque jour ñuy laalante ak maladie donc ce sont des zéros ce sont des gens à sublimer à respecter à remercier donc ñoom dañ leen di wax big up ñoom jërëjëf. je suis très content de participer à à la sensibilisation, de participer à l'information. Euh, c'est pourquoi je témoigne à visage découvert. Hein. Euh, faites du film ce que vous voulez, partagez-la, diffusez largement, que les gens soient sensibilisés.